mbokk yi ginnaaw bu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy boroomu man ci weeram wu tedd wii ak fanam yi tedd yi nga xam ne mooy fan yërmandeem lii nga xam ne moo nekk ci àdduna si te jaaxal ñëpp te moom rek mooy mooy ki nga xam ne moo ci moo ci am garab moom ko fi mën a jeexal yàlla na ko fi suñ borom jeexal mu jeex tàkk te ña nga xam ne yàlla dogal na mu dal leen suñ borom saafara leen ñoom dalagut itam mu musal leen ci ginnaaw bu loolu ñuy tàllal suñuy loxo di jaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom man mooy borom kàttan mooy borom sañ-sañ Cheikh Mamadou Mountakha bi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba te lii itteem ñëpp xam nañ ne mooy lislaam ak doomu aadama yi yàlla na ko suñ borom gën a dëgëral gën koo kàttanal gën koo mënal ba li nga ñe yaar yi nga xam ne moom la am ci yéene ci doomu aadama yi ak am ko ci lislaam ji mu def ci lu kawe njottam te ànd ko moom ca daje ji gërëmu suñu borom képp koo xam ne itam sa tool mooy lislaam yàlla na la suñu borom gën a dëgëral gën laa gàttanal gën laa may ak gën laa man manal ba lépp loo xam ne yéene nga ko def ci lislaam nga def ko ni nga ko yéenee te da ànd ak caag ña nga ko àndal te daje ci ngërëm suñu borom ginnaaw loolu nag ginnaaw bi nga xamee ne waxtaane woon nañ koor dëgg-dëgg koor mooy lan waxtaane woon itam importance bi nga xam ne wala dara ji nga xam ne koor am na ko waxtaane itam ponki koor kon tey liñ liñ bëgg a waxtaane mooy koor moom mu nga xam ne xamoon nañ ni mu toll ci dayo ak ni ko suñ boroom réyale ndax am na ñoo xam ne sañ nañ cee dog wala amul ñu ci sañ a dog ak ñan ak ñi nga xam ne ñoo ci sañ a dog dog ñooñee nga xam ne sañ nañ cee dog ñooy ñan ñu bëgg a waxtaane nag ñi nga xam ne suñ borom may na leen ñu sañ a dog ñooña nag ñi ci ki ci njëkk mooy ki nga xam ne dafa wéradi wéradi goo xam ne su wooree day gën a yokk wala da koy da koy sonal kooku suñ borom may na ko mu mu mu mu dog ki nga xam ne itam dafa nekk ci tukki ci tukki boo xam ne may nañ ko ci lislaam mu sañ mu sañ a wàññi julli kooku itam sañ naa dog ñoo ki ci teguwaat mooy ki nga xam ne mu ñaar ñaar ñii nag muy ki nga xam ne dafa nekk ci ab tukki ak ki nga xam ne dafa wéradi bu fekkee ne woor nañu nag loolu mooy li gën ndax moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nekk nekkul day maanaam bokk na ci lu baax day ci loo xam ne ab woorkat boo xam ne nekk na ci tukki woo mu ànd ak nekk ci tukki boobee mu woor nee na loolu jëf ju baax la ju kawe waa waaye nag bu fekkee ne ñoo ñoom ñaar ñi nga xam ne may nañ leen ñu sañ a dog muy ki nga xam ne dafa wéradi wéradi goo xam ne day am ragal ci bu bu wooree koor ga wéradi ga gën a yokk ak ki nga xam ne dafay tukki tukki boo xam ne may nañ ko ci mu sañ a mu sañ wàññi ci julli ñaar ñooñu bu ñu wooree itam duñu wax ne seen koor googee baaxul ndax dañ leen a mayoon rek bu leen luñ la may nag boo ko boo boo ko jëlee mooy li gën waaye ñàkk koo jël itam du wàññi dara ñaar ñi ñi am na nag ñoo koo xam ne moom suñ borom may na ko itam mu sañ a dog muy ki nga xam ne dafa ànd ak jigéen ji nga xam ne dafa ànd ak dara ak ki nga xam ne day dafa tollu ci nàmpal doomam bu fekkee ne ñoom dañoo ragal ne dafa ragal moom ci boppam ne kat li mu àndal bu fekkee ne maanaam moom ci boppam dafa ragal ne bu wooree loolu mën na koo andil coona wala mën na andi lor ci moom kooku moom sañ naa dog ki nga xam ne itam day nàmpal bu fekkee ne moom ci boppam dafa yëg ne bu dee bu dee bu wooree koor gi dana ko sanal moom ci jëmmam kooku ñooñu ñoom ñaar ñii itam sañ nañoo dog waaye nag bu ñu waree bu ñu ñu ñoom ñeent ñi ñu fi jot a tugg tudd muy ki nga xam ne dafa wéradi wéradi goo xam ne dafa dafay yaakaar ne kat bu ci wooree mën na ko andi coono ak ki nga xam ne dafay tukki tukki boo xam ne may nañu ko ci mu dog ak ki nga xam ne ak ki soxna si nga xam ne am na la mu àndal ak kiy nàmpal ñoom ñaar ñii ñoom ñeent ñii sañ nañoo dog te buñ dogee dara du leen ci war lu dul fay ko rek moom moo leen cee war am ñaar ñoo xam ne nag moom dañoo war a dog moom sañu ñëw koor ñoo ñi nga xam ne nag sañu ñëw war mooy jigéen joo xam ne dafa gis baax ak jigéen joo xam ne dafay soog a am doom te yàlla dogal dara deretam dëggagut ñu sañu ñoo woor ndax yàlla da leen digal ñu ñàkk woor kuñ digal digal nag bokkut ak kuñ may bu ñu la mayee sañ ngaa jël wala nga def nga wala nga bàyyi waaye buñ la digalee moom def rek moo ci war a tegu loola nag moo tax ñaar ñii nga xam ne muy ki nga xam ne dafa gis jigéen ji gis baax ak jigéen ji nga xam ne dafa dafa dafa am day soog a am gone te gara te maanaam te deretam dogagut ñoom ñii moom sañu ñoo woor bu ñu wooree itam du leen jëriñ dara dañuy dañuy dañuy fayaat bis yooyu ñu woor waaye nag bu fekkee ne ki nga xam ne day nampal wala ki nga xam ne dafa gis dafa dafa ànd ak dara ñoom ragaluñ ci ñe bu ñu wooree dana indi dana coono ci seen jëmm waaye li ñu ragal mooy bu ñu wooree mën naa andi coono ci li nga ki nga xam ne dafa ànd ak dara la ma àndal mën na caa andi coono wala ki nga xam ne ma ngay nampal ragal na ne bu bu bu bu wooree mën naa tax li muy nampal dootu am soow ni mu ko war a amee ñoo ñaar ñooñu itam. lislaam may na leen ñu dog waaye nag wóote naag ba nga xamee ne ci seen jëmmi bopp lañ ko yëg bu jee ci si seen yëmmi bopp lañ ko yëg moom sañ nañoo dog fay rek moo leen di war waaye bu fekkee nag ci liñ àndal lañ ko yëg wala mu ñu yëge ko ci ki ki ki ñu yor loola bu boobaa duñu yem ci fay képp waaye dañoo way fay ba noppi itam jox lu moo xam ne mat na ab dund benn ma loo xam ne mën na añ wala mat reer ki nga xam ne miskin la yooyu loolu mooy ndax loolu suñ borom moo na ko wax ne ñi nga xam ne yàlla dogal na xëy na yëguñu ñoom ci seen jëmmi bopp ak ak aw ak wéradi waaye dañ ko ragal ci la ñuy àndal wala ñu ragal koo ci ki ñu yor kooka ñooña ñooñu dadee na dañoo war bu koor gi jàllee danañ fay bis yooyee ñu dog itam dañ ko war a jox joxe ci loo xam ne mën na ab dund maanaam mën na aj mën na ab añ wala mu matub matub reel bu ko defee nag am na koo xam ne moom lislaam da ko wax ne ko sañ ngaa bañ a woor waaye sañ a woor bañ a woor googee day am loo xam ne nag moo koy remplacer ki nga xam ne yar lislaam da ko may na ko sañ ngaa bañ a woor mooy màggat moo xam ne àgg na ci bu wooree koor ga mën na koo andil coona wala mën naa bañ a xàmmee sax ndax woor na wala wóorul wala ki nga xam ne dafa nekk ci dafa yor feebar boo xam ne ñi nga xam ne ñooy seet maanaam docteur bu wér bu maandu xool na ko xam ne kii kat feebar bi mu yor liñ cee yaakaar suñ borom ma mën na lu nekk waaye liñ yaakaar ci ci xam-xamum doomu aadama xam nañ ni kii feebar bu mu yor moom du giiru dundam lay ànd ak moom kooka itam sañ naa sañ naa sañ naa dog ñooñ ñooñ ñaar ñooñ nag muy ki nga xam ne moom dafa màggat ba màggat màgge gi tax na ko ak man ak woram dana jafe wala mënu ko sax wala bu ko wooree du xam bu xamee ndax wor na wala wóor ñooñu ak ki nga xam ne dafa wéradi wéradi goo xam ne ci xam-xamu doomu adama xamal nañ ko ne ko fi wéradi kii de moom moo ko sëg dunday ànd ñaar ñooñu sañ lislaam may na leen ñu ñu dog waaye bu ñu dogee nag bis bu nekk dañ cee joxe loo ma xam ne mat na ab añ wala bu reer ci ci jox ko ba jox ko ab miskin loolu la ko loolu la ñu suñ borom sant ci ñaar ñii nga xam ne wala moom la suñ borom sant ñaar ñii nga xam ne ñi yor nañ ñaari melokaan yi yàlla yàlla suñ borom nangu suñu koor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 ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم